Rewmi 24 TV bismillah dal leen ak euh, jàmmo ci xibaar vendredi 2 janvier 2024 mu mel ne askanu Sénégal yëpp jamono yi li ñuy xaar rek mooy discours Macky Sall bi nga xamante ne rek ñu bari ña nga jàpp na rek lam ca nar a wax rek muy reporter ay élection te loolee rek kenn du ko nangu askan bi yëpp rek ña nga pare taxaw takk seen digg rek di wax ne rek bañ bëre bëgg bëree mu neex mu naqari ko rek mandaam jeex na ay semaine moo ko fi dese pousse élection yi kenn du nangu dañ koy organiser organisé man sa morom duma loolee waral sax ba 14 régions Sénégal yëpp ñëpp rek di xaar lan la Macky Sall nar a wax bu fekkee ne rek dafa nara a yi leen élection loolee kenn du ko nangu te sax Sénégal da ko talut li ñu tal kay mooy organiser élection yi ci bu jour ba rek ku nekk dem xool kala doy rek nga daal di kay votel mu mel ne kon jamono yi ñëpp la ñuy xaar rek mooy lan la Macky Sall nar waxta wax ji ci vendredi tombé ak 2 janvier 2024